may wax ci Kaolack yaakaar naa Thiès laa ne woon léegi nag ni a de départ de l'éradiation de la politique ferroviaire du pays ah. noonu la ñu war a def Kaolack comme le hub maritime qui permet au Sénégal de pouvoir concurrencer d'autres pays qui s'ouvrent maintenant à la destination malienne parce que tey daal xam nañ ni ce c'est de pouvoir rendre le Sénégal attractif mais surtout de créer beneen attractivité économique ci biir région de Kaolack. Kaolack c'était le bassin riche léegi Sénégal suñu mbokk béykat yaa ngi daw dem sama dëkk nag Médina Yoro Fula di fa béy parce que y a pas de structure d'encadrement yi war pour que suuf yi bi nekkoon sonn ñu mën leen fukkaliwaat ba ñu mën continuer di toog seen dëkk. boo demee tey mu département de Médina Yoro la Saloum Saloum yee xaw gën a bëri parce que bëgg nañ liggéey bëgg nañ tekki bëgg nañ kenn mais on n'a pas eu l'accompagnement spécifique qu'il fallait sur la filière arachide pour le repos des sols et en même temps pour permettre qu'il y ait une productivité ci wàllu mbéy mi ci région de Kaolack même constat même résultat dans tous les secteurs que vous touchez mais dina leen des femmes de Kaolack et connues les femmes de Kaolack

de sorte que fii la politique industrielle de bi commencé balaa muy ndaw feneen. bu ñu jëlee tous les investissements ñu concentré ko vers un centre bi un de bi nga xam ne tey mënatul accueillir le Sénégal boo bëggee jot dans la transformation sérieuse des productions agricoles il faut venir à Kaolack parce que Kaolack est une région agricole. nous avons Nous avons la chance d'avoir un dynamisme économique connu. Mais rien, rien n'a été fait pour embellir Kaolak. Le cadre de vous de Kaolak, nous serons dans Kaolak. Il n'a rien fait pour mériter ça. Il y a cette chose, c'est que l'État, les collectivités territoriales, Jérémy, Jérémy, Barat, de quoi et de quoi. Cette ville-là est le carrefour du